قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان الرباني في الكنز الثاني من من من, من كتابه الكنوز العشرة في جلسنا المتصفة والكتاب في المشيئة والإرادة والأمر ويوم القيامة ينادي الله على أهل النار فقبل دخولها أظلمتم شيئا فيقولون لا فلا بد وأنه تعالى قد نشف لهم سر القدر فوجدوا أنهم يستحقون أشد من النار راضين عن حكم الله متلذذين بكشفهم أنهم يستحقون أشدا من النار فالنار بالنسبة لهم أرحم مما يستحقون ثم يغيب الله عنهم سر القضاء فحينئذ يشعرون بالعذاب في النار إلى آخره كنت آه، ci jotaay و weesu cal kunuzul asara yëpp yoon daal ci ci pandaw gi ci buntu al masih maanaam al irada ci mashi'atu maanaam mooy ci buntu bi doon wax ci wàllu coobare yàlla ak namm-nammam ak digal bi nga xamante ne moom lay digal ci maanaam yooyu yëpp di aju ci wàllu ndogal loolu moom moo euh, ci sëppandaw bi euh, a ñàkk wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, lu ñuy tuddee xabiyatu tasyiir wa taxyiir maanaam buntu bi nga xam ne mooy wax ndax nit ñi dañ leen di womat wala boog ñoom ñooy tànn seen jëm naka noonu wala boog ci danoon wax mooy xabiyatu qada wa qadar maanaam masala bi aju ci wàllu dogal ak teg borom subhanahu wa ta'ala ak dogalam lii nag gisoon nañ ci ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhi maanaam gisoon nañ ci ñaari jotaay ci ginnaaw li nga xamante ne moom mooy différence bi nga xamante ne moo am diggante ahlus sunna wal jamaa ak ahlul bid'a ci wàllu dogal maanaam nan lañ ko jàppe ak teqantal yi nga xamante ne moom moo ci aju euh, gisoon nañ ko fii ñaari jotaay ci ginnaaw euh, waaye euh, gisoon nañ tamit maanaam si bu ñu xoolee ci jotaay yu weesu gisoon nañ ci ne ndogal maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy borom masxat bu njëkk bi maanaam ñi nga xam ne ci borom xam-xam yi dafa am benn xeetu façon gis-gis bu ñuy gisee masala boobu maanaam noonu lañ koy xoolee bët bi ñu koy xoolee ñi tax nag ñu naan al ulama aussi li tax ñuy wax al ulama aussi mooy al mooy al ulama billah maanaam mooy euh, li nga xamante ne mooy nit yàlla yu borom xam-xam yu mag yu sell ñoom euh, dañu ne kenn ñenn ñi ñoom seen benn borom bu ñu ci dëkk yi dañ ne euh, ndogalu yàlla bi am mooy acte bi acte yàlla bi acte ci mbir yi seen jëmmi bopp ci lu amul lenn lu mu ci yokk maanaam mooy àtte rek li yàlla àtte euh, kon borom bi yooyu nag daf ñoo digal ñu gërëm ko waaye am na lañu àtte ci mbir mi maanaam xew-xew bi ci boppam loolu nag maanaam tegteeluwul ne dañ ko war a jox maanaam xam nañ ne yàlla dogal mbir mi nañ ci ko nañ jàpp ne d'accord nañ alhamdulilah ñu accepté ko nangu ko noonu gërëm ko noonu waaye nag mbir ci boppam mën naa nekk lu bon en soi moom ci boppam bu boobaa nag loola la ñu loola lañ dul gërëm loolu moom dañ ci mën a kontaan ala kulli haal euh, euh, kon loolu moom mooy benn gis-gis bi nga xamante ne moom mooy bu jëkk bi maanaam mooy ne tamit ne yàlla lenn lu ci nekk daf koo àtte selon mbir mi ci boppam maanaam comme exemple bi ñu ci diggoon mooy maanaam li ñu doon lii euh, mooy exemple lu juñ bi maanaam mooy arc bi nga xamante ne mooy arc euh, flèche bi kooku mu dëngee noonu noonu la baaxee maanaam tey bu daa war a jub day am problème maanaam problème day maanaam day nekk problème loolu tamit maanaam ñu dëng sax maanaam ñu dëngee noonu noonu la baaxee ci maanaam ndax noonu lañ mën a mel mënuñu mën leneen maanaam ndëngte googu nekk ci ñoom maanaam moom moo moo dëppoo ak seen loolu nag fekk la woon ne ñun dañoo a bëgg lu bon waaye li ñuy fekkeel rek mooy ne mbir mi mën ko weesu rek la mën a nekk maanaam masalan ban fu sobe rek la mën a nekk maanaam ala kulli xaalis ak lu mën ci euh, parce que bu mel woon lim lal du mën a nekk mbaam xuux kon euh, propriété yi ñu amee gènes yi mu yore maanaam mën ta nekk mel mel leneen parce que sinon du baax maanaam sinon du nekk mbaam xuux voilà maanaam lool nag toog ko ci boole mbir yi loolu mooy borom euh, gis-gis bu njëkk bi ñaareelu gis-gis yi ñoom dañoo gis ne euh, dañoo am ñu ñu jàkkaarlool mooy ñi nga xamante dañ koy wommat rek ko mu jëm am nag ñi nga xamante ne ñoom la ñu tudd ahlu faqiir ñi nga xam ne dañoo mu jëm Euh, bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax waxi wommat ñoom dañ naan ah waaw léen seen seen seen wommat woowee wala boog seen tànnis googee ana fan ngeen ci ci lan ngeen ko teg ci lan ngeen ko tabax ñu ne parce que yàlla ci boppam dafa may nit ci xel boo xam ne moom lay xalamee maanaam moom lay xalaatee comme que yàlla may na ko xel bu muy xalaatee loolu li muy tekki ne mooy lépp lu mu def moo ko tey moo ko tànn ñoom ñu ne ko waaw d'accord maanaam waaye xool leen seen xel yi nga xamante ne maanaam maanaam xalaat yi nga xamante ne ñoom la ñuy dund ci xel yi maanaam xalaat yi am ci xel yi ndax xalaat yooyu ñoo créé mbir yi wala dañ leen a créé maanaam xalaat yi ci boppam ndax ñoom ci seen bopp dañ leen a yi ci xel mi maanaam yàlla da leen a bind ci xel bi wala ñoom ci seen bopp ñoo créé seen bopp bu boobaa tontu bi mooy ne déedéet dañ leen a la gars di wax maanaam ñii taan ñii wax ne mbir dañ wax ne li seytaan la ñoom dañ naan ah déet xëy na yéen euh, xalaat yi moom wax dëgg yàlla mënuñu créé seen bopp kon dañ leen a créé te dañ leen a créé ci xel bi ñoom ñu ne ah waaw kon yéen ndekete ndeke sax xalam yi xalaat yi nga xamante ne moom ngeen tabax ci seen maanaam ci kaw xalaat boobu nga xamante ne moom moo tax boo dem seen raisonnement bi ci ngeen ko tabaxee mooy ah ndekete dañ ko bind te yàlla boo ko bind kon nag daanaka mënatoo leen a dàq ne nit ki dañ koy laal nit ki dañ koy womat léegi bu boobaa ñoom laaj li ñuy laaj moom mooy rek maanaam benn laaj rek moom mooy nekk laaj bi nga xamante ne euh, mooy leen di jaaxal mooy kon bu fekkente ne mbir mi demee noonu kon ana moo tax yàlla kon di buggal ñu laa boobu rek maanaam moom mooy nekk moom mooy posé wu parce que bu fekkente moom borom subhaanahu wa ta'aala moo ko woo mat ci mu jëm ci dañ ko war a kon ana lu tax ñu koy dugal en dehors de maanaam mooy euh, lu tax yéeféer mu nekkee yàlla moo ko bind ci moom moo ko dogal ne ñaari mbir rek mën a nekk bu njëkk bi moom mooy ne ñu ne yàlla la koo tooñ ñaareel ñu ne dafa am secret bu nekk ci ginnaaw loola yàlla tooñu ko waaye secret nga ca gannaaw euh, léegi maanaam borom xel yëpp maanaam ba ci ñi nga xam ne ñooy way daggee yu mag ñi dàggante ñi dàggante yàlla di wedd yàlla ñu mën ñu sax maanaam ak ñoom d'accord nañ ne yàlla moom daa baax maanaam te ak tooñ daa jomb ci moom maanaam du tooñ euh, kon nag léegi lenn rek ci def mooy ne daa am secret boo xamante ne muy secret ndogal boo xam ne yàlla rek moo ko xam te loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al qadaru sirullah maanaam ndogal secret yàlla la euh, loolu Euh, mooy tënk li nga xam ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi wees euh, te loolu tamit euh, taxawoon nañ ci secret dogal googu ne secret la bu borom subhaanahu wa taala téyul boppam maanaam moomal boppam te wuññiwu ko xatta yenentaam yi ak malaakaam yi alayhim salaatu wassalaam kenn maanaam secret la boo xamante ne borom subhaanahu wa taala da kaa denc boppam waaye nag mu am ay njariñ yu tax yu ci nekk maanaam moom mooy gëm dogal daf ñuy pousser ci ay jikko yu rafet ci ay euh, wéetal borom subhaanahu wa taala daf ñuy ubbil dëgg-dëgg yoon bi ñu jëmee ci yàlla parce que bu ni yàlla moom mooy dogal li ñuy tekk moom mooy am yàllaa ko fi def li ci ñàkk yàlla la soog bu ñàkk maanaam boo ko fi deful ci nekk li ci nekkoon te jóge bi yàlla la soog mu jóge loolu kon bu boobaa li ñuy yóbbee mooy dañuy gëm ne mbir yi ajuwul kese kese kese li nga xamante ne moom la xel yi di tënk masala ñu naan benn waaye loolu ñun ñëpp mën nañ koo dégg daf feebaroon feebar sàngam médecin neewoon nañ ko diagnostiqué ko nañ ko nee nañ ko yow moom ci toll daanaka doo ko dundati lu bëri nangam nangam wax a wax a wax a wax wax ci lu lu lu lu yéeme maanaam loo xam ne mooy li gën a ñàkk a dalum xel lépp wax nañ ko ci feebar aji feebar jooju ah léegi ñu jékki-jékki rek waa ji jóg ñu ñoo ket ñu daal di koy defaat test yi daal di digatuñu dara dara dara dara dara loolu li adu maanaam mooy ndogalu yàlla rek la maanaam loolu boo rek subhaanahu wa ta'aala dañuy ne sabab bi moo koy sababal mais ndogal yi moom si moom la ak maanaam moom mooy dogal mbir mi euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon maanaam kon loolu mooy baax bi maanaam ñu xam ne en fait mbir yi euh, sabablu ci la bokk mais mbir yi bu sabablu bi mooy indi mbir sabablu bi nag teggin la boo xamante ne moom la ñu war am ak suñu borom subhaanahu wa ta'aala loolu rek la mais ginnaaw mais euh, teggin la rek bu ñu war am suñu diggante borom subhaanahu wa taala ci loolu la yem waaye du sabab bi moom mooy créer mbir yi moo tax duñ dogal daf ñuy yóbbu ci euh, ñëwoon ngeen ci ay yoon euh, waaye du ay ñu ñëwaat ci daf ñuy yóbbu ci ñu gëm maanaam lii comme que borom subhaanahu wa maam day tax ñu wéetal yàlla ci lépp maanaam ñu wéetal borom bi subhaanahu wa ta'ala ci lépp parce que boo gëmee ni yàlla mooy dogal mbir yi lu xew da nga koy askanale yàlla maanaam yàlla la neex mu tax mu demee nii comme ñu nangu ko noonu comme niñ ko gisee nag loolu tegtalewul ne dañoo war a nangu li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam bu dee mbir mi ci boppam baaxul borom subhaanahu wa ta'ala daf ñoo war ne lii du lu bon la que ñu nangu ne lu bon lii mujj naa baax déedéet yàlla la neex mu demee nii naam ñu d'accord ci loolu mais nag borom subhaanahu wa daf ñu xiirtal ci daf ñu digal ci ne lu bon dañ kaa war a jënd loolu moom mooy benn ñaareel bi ci des mooy kon la fekk ñu wéetal borom subhaanahu wa taala ci mbir mooy day tax ba lépp lu ñu arrivé wala lépp loo xam ne am nañ ko dañ koy askanale yàlla ñu sante ko moom yàlla. Euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom la moom lay indi maanaam day tax ba ñu xam ne. mboolem lu dul yàlla yàlla la ko doole maanaam mboolem lu dul yàlla rek amoo doole mooy baat ci boppam laa hawla wala quwwata illa billah kenn amul kattan maanaam di soppali kenn amul soppaliku ak kattan lu dul ci borom bi subhaanahu wa taala comme que mbir mi noonu la demee nag borom bi subhaanahu wa taala moom moom lépp moo yilif lépp moo téye lépp mooy doxal lépp nan ko neexe kon ñun amuñu amuñu ci keneen maanaam. keneen suñu war a ragal wala leneen lu war a ragal parce yàlla moo ëpp doole lépp euh, beneen bi ci def moom mooy ne beneen bi ci def mooy ne day tax ñu gëm ne euh, maanaam day dindi ci ñoom rëy parce rëy bi koy def mooy ci foog ne moom am na lu mu nekk maanaam et moom par essence xëy na wala mu mel am na ku mu gën wala ku mu féete kaw euh, rëy boobu daf koy dindi boo gëmee ni yàllaay dogal parce bi nga xam ne ni nga mel yàlla moo la ko defal ñeneen ñi ci tam ni mel yàlla moo leen def noonu kon maanaam mbir mi du yomb yaa mel noonu du ñoom ñoo mel noonu mais yàlla moom la foog mbir mi dafay nii mu dem beneen bi ci def tamit moom mooy le fait que muy dindi rëy mooy da nga xalaat ne borom subhaanahu wa ta'aala mën ngay wëlbati mbir mi saa yu ko neexee. gis nañ ci situation yu catastrophique ba nit ci jàpp ne mbir mi c'est fini renversement de situation daal di am. gis nañ ci tam ay situation yu baax a baax ba nit foog ne jeex na renversement de situation am maanaam kon loolu mooy ne yàlla ci boppam borom subhaanahu wa ta'aala ah, moom mooy. moom mooy maanaam mën naa wëlbati mbir yi saa yu ko neexee ci lu gën a gaaw xefat si diggante xefat si ci lu gën a gaaw loolu borom subhaanahu wa ta'aala mën na ko def te bu boobaa dañuy daal xam ne rek euh, maanaam yàlla borom subhaanahu wa ta'aala moo dogalee noonu mbir bi loolu moom moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy gëm dogal euh, ñoom tout le temps dañuy nekk ci ci ci ci def ndax maanaam modestie boobu humilité boobu nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala mën naa wëlbati mbir yi saa yu ko neexee Euh, beneen bi ci def moom mooy day dindi ci xol nit ki lu demee ci ñaan ndax ci ñaan ci koy def mooy ci jàpp ne kii ni mu mel euh, maanaam moom dara la ci moom ci boppam lii mu amul te bëgg na ko xëy na euh, moom mën na cee wut ay pexe wala ba gëmul ne borom subhaanahu wa ta'aala ni mu mel moo ko may te moom mënu ci dara. parce que borom wërsëgu yàlla la yàlla daf ko wërsëgal lool moom ak lu mu ci kaw bu ci dara après kon iñaan ji day yokk yokk ñaawaay la rek mais ah, mais jëriñu lu bëri jëriñu jëriñu dara daa day yàq rek kon gëm dogal bokk na ci lu ñuy jariñ mooy la fekk ni ki nga xamante ne moom mooy ci ci ci day tax nit ki du mën a ñaanal ndax day xam ne lu nit am rek yàlla la neex moo am ko te ko maadaama yàlla la neex rek alhamdulilah rek la ñu mën a wax waaye lu nit nekk yàlla la neex moo tax mu ñàkk ko te maadaama yàlla la neex kon delluwaat ci yàlla rek moom moo ci moo ci am loolu tamit moo tax gëm dogal day tax nit ki di delluwaat ci yàlla maanaam gëm ni ah man day vraiment lii di bëgg naa ko aw ma ko mais dinaa ko jàmbat yàlla voilà loolu nag daa kontiwul ak mun

muñ bokkul wutewul ak jàmbat muñ du ñàkk a jàmbat déedéet muñ mooy ñàkk a jàmbat ku bokkul ak yàlla loolu muñ voilà maanaam di nga jàmbat mais yàlla ngay jàmbat voilà parce que yàlla bëggul tamit mu dina teg nattu parce que teg bi mu lay teg nattu bi pour daf lay xàmmaliku rek maanaam pour nga xàmmee ko la maanaam ne ah, ah lii de ci yàlla la jóge alhamdulilah ah yàlla yow mi ma teg lii de maa ngi lay ñaan nga teggal ma voilà maanaam ngir ne daf la teg natt bi pour sa xol gën a aju ci moom aju nga gën a wëlbatiku di gën a toroxlu ci kanamam gën di delluwaat ci moom moo tax borom subhaanahu wa ta'ala eh, bokk na ci xéewal yu rëy yi mu ñu defal mooy la fekk mu ñuy teg ay natt di ñu teg ay feebar di ñu teg ay jaaxle di ñu teg di ñu ay tiit di ñu teg ay njàqare di ñu teg ay tiit di ñu teg euh, ay métit euh, di ñu teg ñàkk di ay feebar yooyu yëpp ay xéewal la ndax bakkan bi ñu yore suñu borom subhaanahu wa taala exempté woon ci loolu yëpp bakkan boobu day taxaw ne man maa yàlla maanaam imagine ngeen nit ñi bis bu jot ci ñi lii ma tudd yi la loolu yëpp nga gis seenu firtéerlu ci kanamu borom bi lan ngay xalaat su fekkoon te lii yëpp dara du leen fekk ci yu mbele yi nekk suba ngoon bu dëgg dëgg maanaam euh, koo xamante ne euh, jullit la maanaam natt yi xéewul la ci yéeféer nag la natt yi nekkee mbugal euh, bokk na ci lii gëm dogal di maye mooy ñàkk ngistal doo ko doo doo bëgg maanaam comme que yàlla rek mooy joxe yàlla rek la aju doo ko nekk di def wala ngay wax wala ngay bàyyi wala ngay noppi ngir di wut benn considération ci xolu nit maanaam euh, loolu du motiver sa ay jëf ak say wax lu tax parce que mbir yi ci yàlla rek la aju comme que ci yàlla rek la aju euh, kon ci yàlla rek lay dellu loolu yëpp gëm dogal daf koy maye maanaam kon ñàkk bi gisul tamit euh, bëri na ay mbir yoo xamante ne maanaam gëm gëm dogal da koy da maye mooy di sant yàlla foo toll di di di di gis ne mbir yëpp ci xol maanaam ci borom subhaanahu wa taala lay am nga koy savouré bu baax ngir xam ne yàlla vraiment euh, bi muy may ñëpp ñiy bind yëpp bind na yëpp séddale na xéewal yëpp may la yaw loo xamante ne mën nga xool ci sa ci say alentour yi say junni moroom amuñu ko te bëgg nañ comme niñ ko bëggee ak am yow yow la ko yàlla jox bàyyi ñeneen ñi ci def ñëpp loolu te loolu képp kenn ci ñun mën na xool boppam gis ne am na lu am loo xam ne bu xoolee ay junni moroomam amoon bëgg nañ ko bëgg nañ la même te moom ëpp leen mérite parce que mérite ci boppam moo amul maanaam mbir mi ci yàlla rek la am moo ko dogalee noonu mais lan moo nekk ci ginnaaw lu fekk loolu yëpp demee noonu secret la bu mu téyeel boppam secret la bu mu téyeel boppam lan moo tax nit ci di mën di ci coono dee ci coono dund ci coono dem safara ba pare war fa sax secret la bu yàlla téyal boppam léegi ñun li mu ñu laaj mooy ñu gëm ne moom mooy dogal rek mbir mi ni mu demee lépp lu ci am ci moom la aju moom borom bi subhaanahu wa domaine la boo xam ne moom moo ko réservé wu domaine réservé la ci moom exclusivité la ci am nañ ko ko bàyyeel domaine am la mu nangu ne moom moom loolu moom loolu rek la ñu وضع حديثنا القدرية قصماء الله يوم القيامة نيلا خمسة من يوم لا يد بقول يلا يوم يخلو ولا يلا بيجي تحوال فلا بقاية مصاري آية من البرم سبحانه وتعالى يوم القيامة بالليل دوجل بالكفر من يكمل البرم وحيل المجرمين fii dalaalin wa sawa yawma yushabuuna fi nnaari alaa wujuuhihim zuuquu masata xaal naka way jomb ñaa jaamu ñi nga xamante ñoom ñooy mooy criminel yu mag yi ñu mu tuddee foofu criminel yu mag yi mooy ñu mu tuddee criminel yu mag yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñii weddi dogal yàlla ñu ne ñooñu ñu ci sànq bu réeré te ci sàq sàq la ñuy dund bis bi nga xamante ne dañ leen di nuur di safara ci seen xar kanam di dëppee ci biir safara ci seen xar kanam yi ba pare na leen wax leen méthode bi nga xamante ne tàngoor yi nga xamante ne moom moo nekk ci safara bi moo tax borom subhaanahu wa ta'aala bu boobaa dana leen wax bu ñu leen dugalee biir safara ba noppi dana leen wax ne leen inna kulla shay'in khalaqnaahu bi qadar ñun de lépp dañ ko bind te ci ndogal yàlla la am comme loolu day tegtale ne tegtale la boo xamante ne moo ko téyel boppam te comme yeneen ci yàlla Nuux alayhi salaatu wa salaam te moom mooy ci mu doon ci ulul azmi mina rusul maanaam euh, bokk ci yeneen ci gën juróomi yeneen yi gën a mag yi mbindeef yi gën a mag yéen ci yàlla noonu boobu alayhi salaatu salaam ci la bokk te borom subhaanahu wa daf koo daf koo dàmpaat ko laa tas'alnii maa laysa laka bihi ilmun innii a'izuka an takuuna minal jaahiliin bul ma laaj loo xamante ne mënoo ci am xam-xam te moom mooy wàllu secret ndogal maa ngi lay dànkaaku nag ci nga bokk suñu réer mi. maa ngi lay moytandiku lool. c'est moom la ko wax waxuma la ak ku dul moom waxoon nañ tamit ne secret ndogal secret la boo xamante ne borom la ne moo ko réserver boppam mais ubbi na bunt bi kenn sax ci mindi sunu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Euh, te waxoon nañ tamit ne Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu waxoon na ne ñu mel ni moom ñoom maanaam ci warasatu euh, Muhammad yu la yu mag yi ñoom am secret dogal ñoom ñoo ko xam ñoom yàlla boole ko ci ñoom yi gis secret dogal mais euh, buntu la boo xamante ne buntu bu rëy la buntu bu sew la. Euh, te borom subhanahu wa taala du ko may lu dul li nga xamante ne dañuy tax ci gëm Yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, muy wiraasatul muhammadiyyatul mahda mooy fekk mooy un héritage mohammédien pur strictement mohammédien sauf que euh, kon ñu xam ne kon loolu moom mooy maanaam secret la bu mu téye boppam ñu wax ko ne noonu rek mu ne wa yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba yunaadi llaahu buur yàlla dana woote ala ahli naari ci waa sawara ne leen mooy qabla duxuulihaa laata ñu koy dugg ne azlimtum ndax tooñ nañ leen tooñeef na leen koy an dara maanaam bu ñëwee yawmal qiyaamati ñu tegal leen mbiri parce ba pare teg ñu jëm ba ba ñëw balaa ñuy dugg sawara borom subhaanahu wa ta'aala dina leen ne leen est-ce que vraiment tooñ nañ leen ci dara fa yaquluuna ne laa déedéet fala budda waaye nag du mën da ñàkk wa annahu ne fekk na moom buur yàlla taala aju kaw di xat dëgg dëgg kay dafa wuññi na la wuññee leen ci raw xadari mbootu dogal mboot gi nekk ci dogal fekk na yàlla wuññil na leen ko bu boobaa nag fa wajadu ñu daal di gis annahum naka ñoom kat yastahiquna yelloo nañu ashadda lu gën a tar mina naari ci sawara ndekete ñoom la ñu yelloo sax bu gënoo garaaw safara dem safara raab yi nañu gërëm lool alhamdulilah ci àtte buur yàlla mutallabbibiina seen mbir nekk aji bànneexu bi kat seen ci a borom bi a tar min eh, ci sawara kon nag kon naaru sawara bi nisbati bu ñu ko askanoon teg lahum ñeel leen arhamu moo gën a yërëmu mimmaa ci li nga xam ne yastahiquuna moom la ñu maanaam comme ñoom daal gis loola jàkkaarloo ne ah ndeketeket yàlla dañoo yërëm sax topp moo tax borom bi subhaanahu wa taala yërma ngëm ba ci biir sax waa safara dafa dafa ah, bi subhaanahu wa taala dafa dem ba ci waa safara même ni mu nekkee biir safara sax yàlla da leen a yërëm mbugal gi leen di mbugal biir safara sax loolu ci jëmmi boppam yërëmande gi leen yërëm gi leen yàlla yërëm moo tax mu di leen mbugal su leen yërëmuloon du leen saala maanaam du toppatoo seen liggéey du occupé wu seen affaire mais le fait que mu leen di mbugal mooy wane ne yërëm na leen comme ni ko adage bi di waxe qui aime bien châtie bien la suñu benn waaye waxoon ne nous on nous adorait ah xaw ma leen a rey mais borom subhanahu wa ta'ala euh, yërmande googu kon moom moom moom maanaam ñoom dinañ gis ne que ne maanaam déjà ñoom liñ ci yàlla liñ sabara ji ñu li ñuy tar tar tar moo gën tuuti. moo gën a moo gën a maanaam yéegul ci niveau wu ñoom lañ yelloo ñu ne su topp nag yu xayibu borom dana fàddu anum walit leen sirra xabaay secret maanaam mbootum mbagal maanaam acte bi yàlla tëral seen kaw nag léegi nag après yàlla day dindi acte bi parce que feeg ngi koy xam dañ ci bànneex dañ ciy bànneexu maanaam du ñu gisati ni mbir mi nekk na voilà duñ naan coonoy bànneex la maanaam ñoom coonoy bànneex la liy gis bu nekk bu maanaam bu leen yàlla wanee mbir yi mais bu yàlla dindee ne secret boobu tax yi naay biñ jamono jooju nag yaakaaroon na ñuy yëg nañ dul azab bi ci mbugal nekk ci naara bi sawar ñu yëg ko nag maanaam ci buntu boobu mu ne waxat dëgg-dëgg xaraja génne na ibnu asakir al imam rahimahullah taala ci taarix yi ci téere boobu moom ci tab ci taarix boobu anal xaaris moom mu jërë mu ne am na wax xaala nee na jaa dikk na rajulun benn waay ila amirul muminina muy alim ibn ibn abi talib karamallahu wajhahu fa qaala mu ne ko yaa amiral muminina e yow mi nga xam ne yaay njiitu boy gëm ni axbir ni xabaare ma anil qadari ci wàllu dogal dogalu yàlla moom lu mu doon xabaare ma xaala mu ne ko tariqun yoon la boo xam ne mu bu mun la laa laataf la ko a soobu bul bul bul bul bul jaar yoon boobu bul nekk ci di limit ndogal lan mooy dogal lu tax ñu dogal nangam yoon la boo xam ne dafa dafa lëndëm bul ko bul bul ci sóobu mu ne ko yaa amiral mu'minin ay yow yow imaamu way ni yow njiitu way gëm ni axbir ni xabaare maanal xadar wàllu dogal waay qaala sayyidina Ali karamallahu wajhahu ne ko bahrun géej la amiqun bu xóot a xóot laa taluj waay waay waay bul ci nuuru bul ci suuf waay maanaam bul ci bul boo ko defee baaxul de boo ci duggee ah géej bu xóot a xóot la maanaam faaw nga mën a téye te sax mën a téye léeg-léeg ñu ci génne. qaala ko yaa amiral mu'minin yow njiitu way gëm ni axbir ni xabaar ma anil qadar ci wàllu dogal qaala mu ne ko sirrullah secret yàlla la boo xam ne xat dëgg dëgg xaf ya dafa nëbbu alayka ci yow yàlla dala kaa nëbbu fala tafshihi bul ko luñ nitu nan da ngay ubbi secret boobu qaala mu ne ko yaa amiral mu ne way gëm yàlla yow yow imam way gëm axbir ni xabaare ma anil qadar ci wàllum ndogal qaala mu ne ko yaa ayyuha saa'il yow mi nga xam ne yow yaay laaj inna allaha naga buur yàlla xaaliqu ka moom mooy aji bind la kamaat saa na mu soobe aw wala boog kamaat fii sa seen nam la soobe yow bi la yàlla bind moom yàlla da laa bind moom ni mu ko bëggee wala daf laa bind yow ni mu ko bëggee xaala mu ne ko bal li fi nekk mooy kay kamaat saa kenn ni mu bëggee la ni mu ko bëggee la ni mu ko soobee xaala mu ne ko fa yasta'milu ka ndax daf lay jëfandikoo kamaat saa kenn ni mu ko soobe aw kamaat fii ta wala boog ni mu la soobe maanaam lim la jëfandikoo ci yi ngay dox ci yi ngay nekk sa àdduna ñi muy def yaa ko tànn wala moom yàlla moo ko tànn yaa ngi dugg place tàngam yaa tànn wala wala déet say way bi mooy jiw jiw yaa ko tànn wala moom moo ko tànn euh, environnement bi nga màgge yaa ko tànn wala moom moo ko tànn influence yi ngay am ci sa environnement extérieur yi mode de pensée yi nga xamante ne ñoom ñoo dominé sa jamono ba yow booy xalaat faaw daan lay xalaatee yow yaa ko tànn wala moom yàlla moo ko tànn xaala mu ne bal li fi nekk kay koy commencé a ceeb nu mu ko soobee xaala mu ne ko fa yobaasu ko kon dana dana la nekkal yow man xiyamat bi ci taxawaay ba commencé a ceeb nu mu ko soobee aw wala ba commencé na ceeb nan ko soobee yow xaala mun a bal kay bi fi nekk mooy commencé kenn mu ko solo rek xaala mun a ko ayyuha sa'il yow aji laaj bi alasta xanaa nekkoo di sax al di laaj allah bur yàlla rabbaka sa borom al aafiya ak mucc maanaam yéen kenn nekkoo di ñaan yàlla yàlla musal la xaala mun a ko balaa axam kay xaala mun a ko fa man ay fa min ay shay'in ci an bi ban ala ban bi tasaluhu moom nga koy laaj alafiyata mucc aminal bala ndax ci bala nattu allazi bi nga xam ne ittalaaka moo la nattoo bi ci moom aw wala boog minal bala ci nattu allazi bi nga xam ne ittalaaka moo la nattoo bi xëy ci moom xëy bu keneen ku dul moom ndax natt bii jóge ci moom la wala buy jóge ci keneen ngay ñaan yàlla musal la ci baala mu ne ko minal bala ci xanaa ci nattu allazi bi nga xam ne ittalaani moom la ma nattoo bi ci moom waaw mu ne ko yaa mu ne ko yaa ayyuha taalib eh, laaj kat bi yow da wax laa xawla amul benn soppandiku wala quwwata amul benn kàttan illaa lu dul bi man ci kan booy wax ne kenn amul amul kenn ku am soppandiku maanaam soppandiku mooy di ut pexe ak di fexe nooy jaar ba mën a mucc ci dara ku wax amuloo kàttan ci mën a acquérir sa bopp dara amal sa bopp dara loolu kenn mënu ko illaa billahi xanaa lu dul ci ci buur yàlla mu nag illaa bi nan ngay wax laa hawla wala quwwata illaa bi kan lan ci tegu walla jooju yëpp xam na ko hmm? qaala mu ne ko illaa billahi xanaa ci buur lu dul buur al ali mooy aji kawe ji te yéegi ko wul te yéegul boog al aji al azim mooy aji màgg ji qaala mu ne ko kon nag fa taalamu ndax xam nga maa fi tafsiriha li nekk ci euh, firi moomu maanaam bu ñu firiwee wax jooju lan fekk xam nga ko xaala mu ko taallam ni ma min maa ci li moom la la xamal moom maanaam moom la la yàlla xamal yaa amiral mu'minin yow mi nga xam ne yow yaay imaam way gëm ni yéen jiitu ñi nga xam ne ñooy gëm ni xaala mu ko inna tafsira naka firi ma mooy ne laa yaqdiru kenn amul kàttan ala ta'atillahi ci topp yàlla wala yakunu te du ñeel du nekk mukk la ñeel ko quwwatan ak kattan fi ma'siyatillah ci mooy yàlla fil amrayni ci ñaari mbir yëpp jami'an boole seen illa billahi lu du xanaa bu yàlla am benn kattan benn la la maanaam yàlla mënu ko naka noonu mooy yàlla sax amoo kattanu def ko wala boog butti ci ci ñaari mbir yëpp amul benn dara lu dul xanaa ci yàlla yàlla rek moo la mën a dimbal nga mën ko am ayyuha sa'il ay eh, yow aju laaj bi alaka ndax ñeel na la ma allah ànd ak buur yàlla mashi'atan ak soobare est que am nga beneen soobare boo xamante ne foog yow da ngay topp yàlla topp affaire bi doon exécuté aw wala boog duunallahi wala boog ci lu bokkut ak yàlla mashi'a ak soobare maanaam mu ñaar yëpp am maanaam munoo ne bon pour mbir réaliser wu yàlla dana ko bëgg gaa mais man tamit il faut ma bëgg ko maanaam mooy yow ku mbëggeel du condition maanaam yow nga bëgg dara xew loolu du condition pour mu am te nga bëgg dara xew itam du waral du sabab pour maanaam du waral ngir ma am maanaam bu yàlla bëggee nag amul beneen condition te bu yàlla bëggul it dara dara du xew moo tax mu ne ko fa in qulta boo waxee ne laka ñeel na la duna laahi wëlli buur yàlla masiata nag soobare faqat dëgg-dëgg safayta doy loo nga bi xaa si moom an masiata laa wëlli soobare yàlla waaye nga bu fekkte ne jàpp nga ne njort nga ne am na nekk laka na la foofu laahi kaw yàlla masiatan faqat dëgg-dëgg it daay sa woote nga ma allah ànd ak buur yàlla firkan ak bokkaale fii ma ci at yi ci coobareem bu ci mën ci amit jàpp nga ne rek faaw yaa yàlla moom ngeen bokk mbir mi rek te loola mënta ne kon nag ayyuha saa'il yow aji laaj bi moom mooy jam maam bi indi ay feebar wayu daaw mooy saafara fa minhu ci moom la jóge ak dawaawu Euh, saafara bi wa minhu ci moom la jóge woon itam ak daaw feebar bi jeex na aaxirta ndax léegi xellu nga takk nga amel laa jële ci buur yàlla am raxu am mbiram maam léegi est-ce que comprendre yàlla wax maam dangaa war a gëm dogalu yàlla xaaral mu ne ko naam waaw waaw waaw waaw loolu de dëgg la ko waaw waaw qaala alim sayyidina alim karamallahu wajhahu daan na nag al aana léegi nii nag aslama tuub na dugg na ci l'islam axukum seen mbokk mi tey waa nag léegi mi doog a nekk vrai jullit quoi mais ku mu jël leen fa saa si foofu ngeen nuyu maanaam euh, parce que jullit euh, ngëmam mu nag il mu gëm dogal yàlla mooy juróom benneelu fonk ngëm ngëm mooy gëm dogalu yàlla bu neex beeg bu naqari bi bu baax bi ak bu bon bi lépp yàlla lu ci def tax principe bu xam gëm dogalu yàlla am solo trop parce que dafay dëgëral gëm yàlla nit day wéral julli teg nit ah ñu bëri ci nit ñi xamuñu ko nag ko te seen xel da ëpp doole rawatina bu dee ñun suñu société yi dañoo am benn problème mooy suñu jàngalekat yi wala suñu waaraatekat yi wala sëriñ si dañoo desee xam masala moo tax dañuy faral di wax loo xamante ne wéru gisu gisoon nañ ko ci jotaay weesu seen wax seen mooy gis-gisu moo tax di lay wala xadar yi mooy nag waaw c'est vrai que yàlla dana dogal mais yow xamit nangam nangam c'est vrai que bon yàlla day indi dañuy ay confusion yu bëri bëri bëri yu ñuy am ci masala boobu mbir dañu wut leneen lu dul yàlla ci boppam lu xew moom boo ko def kenn amu ci beneen maanaam kenn amu ci poussière atome amu ci suñu jotaay bi ni mu demee nii yàlla la neex kese mu demee nii yàlla la neex mu am tey demee nii tey jeex na kenn ku am leneen ni plus ni moins nii mu mel nii nii la ko xamee woon ca azal azal mooy préétat mooy balaa dara xew nii la ko yàlla xamee woon te nii la ko yàlla bëggee woon te nii la ko yàlla gisee woon te gis ak xam-xam bi ak bëgg-bëgg bi du dee nii mu amee nii noonu doo ko la am bëgg te nekkee neneen beneen possibilité amutoon pour mu demee neneen parce yàlla lii la ko bëgg kese voilà lenn rek la ñu ci mbir mi lenn rek la ñu ci mooy ne xamal gi ñuy xamal mbir mooma ba pare nag dañu xiirtal ci ne yoon waa ngi nii jaar nañ ci maanaam communication bi ñu xamal ñun ci wàllu ndogal loolu la ñu yàlla defal mooy ne day dogal mbir mi ba pare di communiquer ak ñun ci dogal gi maanaam mooy dafa bëgg man ma naan mu créer marque ci man mu créer marque ci man bu ko man ma naan mais sinon kàttan bi may jëlee ndox mi bëgg-bëgg yi yëg-yëg lépp moo dox amul lenn lu ma ci am bu ko man may bañ a layee maanaam ku ma defee lu bon du ma ne dogalu yàlla la loolu nag c'est pas parce que yàlla dogalu ko déedéet c'est parce que teggin gi ma war a am ak yàlla moom moo du ma ko du ma ne yàlla moo ko dogal moom nag moo ma koy tere par contre maanaam mooy ñaari lunettes yooyu ñu doon wax lunette benn bi day gisee xaqiqa biir mi mooy dëgg-dëgg yi mooy liñ doon wax année ni beneen bi ci def di gisee ni sariya abul maanaam mooy dafa am lu ma yàlla digal am lu ma tere ma war a def li ma digal bàyyi ma tere bu boobaa bu li ma fay maanaam li ma digal ak li ma tere maanaam mbir yooyu ay ay ay ay la ak pour ma mën a maanaam man fan laa toll ci yàlla maanaam yàlla ndax daf ma boole ci li bëgg moo tax ma dëppoo ak ñoom maanaam li muy li mu wala daf ma boole ci ñi nga xam ne bëggu moo tax man li mu digle yëpp sama yoon nekku ci maanaam tere ak li mu teg pour ma juuse loolu la mu may ma tamit force mu mën a ràññeeklee loolu loolu ngëneel bu rëy la mu may àtte ci li nga xamante ne def naa ko te tey ko parce que am na namm-namm boobu mu créé ci man ba pare bu ma àtte ci li nga xamante ne xëy ma ko ndax am dal ci kaw benn xale mu mu génn àdduna par exemple maanaam muy nelaw wëlbatiku tëdd ci kaw xale xale bu dee ak ki nga xamante ne dafa prémédité dem jóg jël paaka dem dem ko mu dee ñaar ñi am nañ différence mais loolu différence boobu am ci accès ci ci charia euh, yàlla laa ci accès ci ci ci yàlla laa bi léegi moo tax fii dafa am beneen masala bu am solo buñ fii la mooy masala yi euh, kon lan mooy tax ngir wut sabab yi maanaam sabab yi quoi sabab yi ñu ngi dugalantee maanaam tey bu ma jëloon sama benn douze coups ma chargé ko ñëw fekk benn waay toog sëdd di nelaw ma déchargé ko ci kawam waa ji dee deewu waa ji ndogalu yàlla la maanaam ak bu ma xew yàlla nii la ko dogale man nag dina dinañ ma teg daan maanaam dana am te daañ ma teg daan comme li Seydina Ali euh, Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu bi mu waxoon waa ji da ji dafa fàtt ñu dagg loxo bi mu ne ko lu ngeen dagg ko dogal maanaam ko dogal mu ne ko voilà sa loxo ba nit li kaw bi parce que da ngaa sàcc la da lii la yàlla digal sew bi mooy maanaam ñàkk teggin bi nga am ci borom bi subhaanahu wa taala te dagg yi loxo bi ñu waral maanaam mooy loolu moom ne maanaam mooy comme que moom dafa sàcc bi yàlla dogalee ne dañoo war a dagg loxo bi yàlla daa dogal ne dañoo war a dagg loxo bi moo tax mu sàcc maanaam moom moom kon maanaam kon euh, dagg loxo dëgg la mais dagg bi ñu war a dagg sa loxo dogalu yàlla la mais comme que ñun mënuñu woon dugg noonu rek dagg sa loxo noonu mais yàlla boo dogalee danoo war a dagg sa loxo te ñun ñoo ko war a taxawee moo tax nga sàcc maanaam kon sàcc bi sabab la buy signe la bu ñu yàlla envoyé buy waree ni moom daa dogal ni ci danoo war a dagg loxo bi maanaam kon so loolu day day day daj bi waxu jabariye yi parce que jabariye yi ñoom dañoo jàppale waa bi comme que yàllaa ko xiir ci lii maanaam bàyyi leen ko rek yàllaa ko ci xiir maanaam ñoo kon waa bi liiritewul benn punition alors que bind bi demee noonu looloo tax sariya bi ñëw di cadre mbir yi di réglementer mbir di ko réglementer parce que su charia bi amul woon règlement boobu su amutoon mais anarchie bu mag mooy am ci kaw suuf te yàlla loolee lay bañ nag anarchie boobu lay bañ euh, léegi kon maanaam mooy lan mooy nit ki mënu ne mënul ne Euh, maanaam munuñoo bañ a firi ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ay njomte loolu munuñu ko maanaam munuñu bàyyi nit ki rey ku mu neex ñu ne noonu lañ ko bàyyi yàllaa ko dogal euh, nit ki euh, tooñ ku mu neex ñu ne yàllaa ko dogal garaaw lañ ko bàyyi nit nekk ci toj toj bu ñu ne lañ ko bàyyi yàllaa ko ci xiir xam nga rek yàllaa ko ci xiir déedéet mbir mën ko demee noonu tamit faw ne ñun dañuy ne ok si la comme ñun li ñu bu ma ni muy nekkee signe bu langage bu yàlla envoyé bu ñu envoyé nañu sawaay naanal maanaam noonu rek la bu waa ji defee teg teg noonu lañ ko war a corriger rek bu nekk langage bu ñu yàlla envoyé ne saa yi corriger leen ci voilà loolu yëpp dugg ci ngaba la léegi nag ñun suñu bañee def loolu li ñu yàlla digal ok bañ nañ ko def maanaam par exemple dugg na ci corruption par exemple xam nga njuuj njaaj ah, corruption yi dugg nañ loolu mooy ne ko ok yàlla moo ko dogal tamit ci ñun mais nag teere nañ ko ba xam ko loolu nag daf ñoo war a puuti ñu dem tuubaat dellu ci yàlla maanaam fiñ la bu ñu yàlla xamak waaye tamit nañu delluwaat leen ci yàlla parce que nattu yi yàlla yi nattu nit ñi euh, yàlla natt gi muy natt nit ñi lu koy waral yàlla natt yi muy natt nit ñi lenn la parfois mooy lan mooy ne dana maanaam euh, maanaam natt gi muy natt mooy bàkkaar yi ñuy def mooy ne da di xamal ne sawaay am nga ay manquement yu nekk ci yow moo tax nga def bàkkaar bi manquement yooyu nekk ci yow nag delloo ci yàlla gàngu tuub ko ñëwal ñëwal ñëwal ma ma réformer la ko ma ma ma ma corriger la ko et que gën a yokk humilité nga am humilité nga gën a delluwaat yow nga nelawoo nelaw njaam parce que nelaw njaam mooy toroxlu wàcce sa bopp xam ne matoo xam ne tekkiwuloo loolu bëri ainsi de suite loolu nag soo ko bëggee loolu nag bu la borom bàyyee noonu doo def bàkkaar amul benn bàkkaar booy def te lépp jub te lépp carré normal amul lenn loo xamante ne lu jubadi la ci seen euh, loolu ñu bëri ñu loolu di dal euh, duñu duñu am toroxlu gi wàcc ci ñoom maanaam duñu am humilité gi wàcc ci ñoom duñu delluwaat ci yàlla ni mu waree ni mu ci waree dellu léegi nag ñooñu bu leen yàlla bëggee da leen di nattoo bàkkaar bu ñuy def boo xamante ne sax parfois dañuy toog ay ñu bëgg a denc ci bàkkaar boobu duñ ko mën dëgg loolu fii la bu leen yàlla wan ne ah sawaay foog nga delluwaat ci yàlla soxlawul ci yàlla delluwaatal ci yàlla fii nga ànd ak humilité nga ànd bul jàpp ne yaa gën kenn parce que yow kat sagam yow yaa ngi leen nii nga mel daal sawaay bul jàpp ne yaa gën kenn bu ko defee nga daal ci dégg dégg nga daal ci dégg loola léegi mu ne ashaabu mashhadu saalih léegi borom gis-gisu ñetteel mu ne xaalu ñoom dañu ne inna qada allah maanaam mooy liñ doon wax léegi inna qada allah naka dogalu buur yàlla moom muamalatun ak jëblante la bayna allah diggante yàlla wa xalqihi am ñu dékkamu maanaam kon dogalu yàlla buñ ko doon définir dañ naan langage la bu yàlla teg diggante moom ak jaamam yi pour ñu comprendre ante waliyete moy muamalatum ak jëflante bay na sharia diggante sharia bi moy li yàlla wàcce mu nek ay ak yu leer wal haqiqa ak dëgg dëgg mbir ni mu demee kullu ha mot lu yi adabul ay teggul rek ma yete ni tamonte lu ay teggul rek ni ñu war a ñoom loolu lañ gisee dogalu yàlla ñoom dañoo jàpp ne yàlla li tax yàlla de ko ba pare nëpp ñu secret bi mooy rek dafa bëgg ñu am yenn segg li ñu am diggante ak moom mu am maanaam euh, ay diggante diggante sharia ak aqida mu ne fa in asa su fekkente ne mooy na al abdu jaam bi fa qaabala allah mu daal di jàkkaarloog bu yàlla taala aji kawe bi sharia ci sharia euh, bu yàlla bu jaam bi defee bàkkaar day xool comme charia fa xaala bu ko defee mu nekk loxo mu wax ko loxo ñëw ko ne yaa rabbi yow saa borom ana man day asaytu mooy naa wa euh, wala boog janaytu bàkkaar naa wa ana man ay ata daytu jalgati kon su defee bàkkaar rek danaan yàlla mooy naa def naa lu bon ah jalgati naa li ma doon dara mu maanaam kon moom su defee lu bon borom subhanahu wa ta'ala loolu la bëgg ci moom mooy soo defee lu bon rek nga gaaw kenn ni yàlla ah yàlla man nag maa ngi euh, je suis coupable je suis coupable bu ko defee xaabalahu mu jàkkaarloo moom rabbu mu boromam bi xaqiqa ci dëgg dëgg mbir mi ne mu demee nag fa wax bu ko defee loo ñoo ko bal li nekk mooy ana man qadaytu maa dogal ci yow wa ana te man aghfiruha maay jéggal la ka ñeel la voilà pour que soo defee lu bon sax yàlla ne la ok mais man maa la jéggal léegi euh, yow dañu ñëw yàlla baal man maa def lu bon mais non non non yow defoo ko. parce que yow bu ci sariya nga xoolee mbir mi yàlla nag ñu ne non non mbir mi ni mu demee dëgg dëgg mooy ne man maa dogal bàkkaar bi ci yow comme maa ko dogaloon ci yow léegi ko ba pare du ci yam sax foofu maanaam da koy wecc def ko la lu baax day wecc lu bon wëlbat mu ne waaye wa idaa qaala la su jàkkaarloo al abdu jaam bi bil xaqiqat ci xaqiqa bi maanaam mooy ku dee jaam bi nag dafa def bàkkaar ba pare naan nekk fa naan maam bi waane fa qaala wax la woon nel ko nan bal nekk anta yow kat yaa rabbi yow sa borom xadayta dogal alal maa fekk ci mooy gi naan yàlla borom bàkkaar bi ma def yaa ko yaa ko dogal la ah. ah am na ñoo xam ne nag xëy na duñ ko defee noonu mais beneen façon bi la ñuy def mooy ñoom lu ñuy wax c'est que dëkk bi nii la demee quoi maanaam mënoo see nekk ba pare di di non il faut nga xam nga faut comprendre nga faut nga ah xam nga si jubal ak yooyu boobu mënul ne quoi ak ay julli yi julli waxtu fii de yooyu tout ça c'est c'est compliqué tu vois non non non. adduna bi ni mu demee léegi xam nga adduna bi dafa évolué quoi maanaam ñoom jàpp nañ ne yàlla muy ko parce que moo leen teg ci circonstance yii nga xamante ne moom moo tax ñoom seen jaamu yàlla du baax wala seen jaamu yàlla mënta mat voilà en fait au lieu ñu xool seen bopp gis leen non ñoom dañoo war a sàmmonte jéem a xool nu ñu defee nekkee ci wàllu baax na yàlla la ñuy ne moom moo moom moo moo créé circonstance bi loolu képp ku ko def lii mooy xew ci yow boobaa xaabala woo dana jàkkal la mu allah bu yàlla bi ak ci ñu daal am maanaam daal ni ko def sharia baa ngi nii nag fa qaala mu wax la ne ko balli bi nekk ante yow fa alta yaa def wa ante te yow a fay yaa mooy yow yaa def yaa mooy parce que sharia loolu lay ko loi bi moom loi bi soo ñëwee loolu moom ñëpp loolu moom ñëpp xam nañu ko voilà te kenn duñu ci xam mbir mi dawal oto bu ñu burlee ko dégg yooyu te naan non c'est que gisuma woon fëg ci nangam ko woon mais quand même bu bindal euh, affaire boobu ñu leen bindal jox la ko PV bi e.

Foi, é, bom, um compatível, só tem essa, lá no ar, depois para o primo, door amande nangu pañ maanaam c'est que loi bi moom du xool xaqiqa bi loi loi du toppatoo xaqiqa maanaam du toppatoo réalité mbir mi nekk ci pour le social wala dara moom daf nekk pour ne acte bi nii la demee dëkk bi nii lañ ko suñ doxalewul nii affaire yi du baax kon lii la ñuy tëj képp la koo xam ne da ngay ñëw di mooy di def bàkkaar ñëw ci kanamu yàlla naan ko euh, mais yàlla yàlla maa ngi nii euh, bàkkaar bi nag bon yaa ko dogal yaa yaa ci yàlla danaa la déedéet lu waa moo ko dóomu maanaam kon yow selon ni ngay ñëwee ce qui veut dire que bàkkaar bi en soi du moom mooy problème bi mais ban comportement ngay am ak bàkkaar bi loolu mooy problème bi maanaam su fekkee ne de bi da nga ko def te jàpp ne yaa ko tey di ko def maanaam comme quoi yàlla c'est vrai que tere nga lii tere nga ko moom bon c'est ah naam ay conscience xam naa ne lii da nga koy bañ mais nag yàlla naa di ko def bon garaawul maa ngi koy naa ko mais bon quand ba pare def ko ba pare ne wala nga def ko ba pare ne bon yàlla c'est vrai que bon xeral nga ko mais bon après yaa ma tëj ci situation bi tax ma def ko ah. yooyu yëpp yàlla naan la mais loi bi déedéet loi bi day dal sa kaw waaw loi bi day dal sa kaw. ñu fàttali benn chauffeur bus déedéet euh, kii contrôleur bus. dama wax wax ju am solo ma fàtte sama kii bi carte ba ma ma wax ko mu ne ma waaw garaawul mais quand même dinaa la bindal quoi ma ko mais nit ki day fàtte l'homme oublie mu ne ma dëgg la nit ki day fàtte mais nit saa yu fàttee conséquence dal ci kaw ma fàttali ko moom aadama te nasiya daa fàtte lekk garab bi conséquence dal ci kaw maanaam loi bi moom du ci nekk di la àtte ci ay ci ay wéy c'est vrai que sawaay nañ ko xoolaat bu baax xam nga non après dina may circonstance atténuante yooyu noonu loolu sare dina ko bàyyi xel waaye dinañ ko bàyyi xel mais loolu day fekk mbir mi tamit nekk lu daay mu feeñ maanaam mu ngi jël ay circonstance atténuante ci loo xam ne feeñul voilà parce que su doon loolu loolu moom moo tax wax jabaram masalan ne ko fàtte naa la wax ko ko ni dafa meroon loolu tax kenn du ko bàyyi xel parce que su doon loolu ku fi la day day day wax rek day après mu layee ni dama meroon après ku nekk loolu lay layee waaw wala def ay sot sëcc rek wala def ay sot sëcc ba pare maanaam buñ lay acté duñ la acté ci bu sariya day acté sa kaw bu acté mbir mi rek ci ne euh, ay déclaration sur l'honneur déedéet kër yi muy vraiment amu woon bi vraiment nangam vraiment maanaam preuve yi suñ tegaloo suñ tegee ba ba pare du ñu bàyyi xel lu dul preuve maanaam ay déclaration pour le maire du tax ñuy kii comme la waaga waxaan rek bu ñu demoon ci kanamu kaso ba daal di tegu kaamil nekk nekk rek bu ñëwee waa teg ci kaamil bi daal nekk liñ may jiñ defuma ko ñu daal lay bàyyi cinq minutes kaso ngeen jël cinq minutes rek waaw gars yi dañuy dañuy buuxante sax pour waaw léegi kon ku ñëw kat keroog ah, borom bi subhaanahu wa taala ah di wax loolu ah borom bi danaan ko déedéet danaan ko bal li fi nekk anta yow faalta yaa wa anta ne yow asayta yaa mooy wasa udxuluka danaa dugal an naara safara looloo tax bakkaar bi gën a garaaw ci bakkaar yi mooy jëmmi légitime bàkkaar maanaam légitime ko même ki ko deful maanaam tey mu toll kii naan sàngara tout le temps se disant que ni li may def baaxul man xam naa li may def baaxul kooku mu gën a tuuti bàkkaar ki nga xamante ne day ne naan bi dara nekk ci man naan bu ma naan mais naan moom naan sàngara moom dara nekk voilà légitime bàkkaar beneen bi def di gën gaaw mooy def bàkkaar ba a di ko xeeñal di ko bëkkal wala boog di ko di ko nekk ni avec fierté comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kullukum mu'aaqan illal mujaahiruuna yéen ñëpp dinañ leen jéggal ba mu def ñi koy ñi feeñal bàkkaar boobu ñu ne ko mooy ñan mu ne nga xamante ne day def bàkkaar ci guddi gi yàlla suuturaal ko ko nëbbal ko ko mu ñëw ci biir naan boo xam nga pour être franc man voilà lépp lu ma ko wax quoi parce dëgg laa effectivement fii def naa nangam ak nangam ak nangam ci baaxam voilà te kooku attention xam boo leen seetloo ne kooku euh, am na am na ku gën a garaaw la biir même même groupe mooy ki nga xamante ne moom daf koy wax avec fierté maanaam day wax ne def na baax sàngam avec fierté mu ne wax daa naka noonu ida faalan su defee al abdu jaam bi taatan ak topp yàlla maanaam su defee jëf joo xam ne topp yàlla la fa qaala mu ne yaa rabbi yow saa borom anta yow kat yastarta yaa yombal wa anta yow sahalta yaa woyofal wa anta yow aamta yaa jàppandal voilà yaa jaama jàppale ci nangam maanaam tey boo bu la yàlla defalee xéewal ba heure julli jot nga daal di julli nga ne yàlla man de julli naa julli ji waaye nag dëgg dëgg nag yàlla maa ngi lay sant parce que yow yaa ma yombalal julli ji yow yaa dogal ci man julli ji yow yaa yow yaa jàppandal ci man julli ji yaa ko weesal ci man itam parce que bëri na ñoo xamante ne bu ñu bu heure julli jotee maanaam jëm ñi xam jëm ñi xam ne rek heure julli jot na rek seen moral bi yëpp dem la maanaam jëm ñi xam jëm ñi xam ne heure julli jot na rek seen moral day dem découragé carrément mun dootuñu mën a dara waaw wala ñu tàyyeel te tàyyeel a tàyyeel a tàyyeel ba ba ba ba mënees la ko wax ñooñu ñooñu am nañu ah ñooñu tamit ñu existé lañ kon yow bu la yàlla yombalee lii mën di julli su julli jotee nga mën koo def wax dëgg yàlla sant ko sant yàlla nag ne ah, maa ngi sant yàlla bi ma permettre rek ni wallaahi ma daal di dund benn minute ba tax ma daal koy siddétal oh oh mooy xéwalu yàlla jiy rëy waay nga sant yàlla ci lim la defal noonu loolu soo ko defee xaabala woo buur yàlla day daal di sa jàmmaar loog waa ji rab rabboo boromam bi shariati shariam bi daa ne ba xaaral mu ne ko bal li fi nekk anta yo amil ta yaa jëf wa anta yow ahsan ta yaa rafetal waxtu ubbi xulóo ko te dalaa la dugal aljanna ka aljanna. yàlla na déedéet yow la yaa def yaa rafetal daa la dugal aljanna mu am beneen partie bi te moom moom la waxul mooy su fekkee ne da nga kaa def ba pare taxaw ne ah dëgg dëgg nag jàmbaar laa ah wax dëgg yàlla vraiment. Euh, bu mu doon seet jàmbaar mën nañ koo maanaam mën nañ koo natt ci man daal wax dëgg yàlla nag ndax jaamu yàlla bi yombul dëgg gi yombul yaa ngi dégg koo julli jot nga taxaw julli ah julli say rakka def say naafila toog ci téye sa kurus daa ngi dégg ba suba def nii ah la bu boobaa yàlla nga naan la déedéet doo jàmbaar maa dogal ci yow li mais comme que nanguwuloo ma remercier ci loolu li ma la defal ni nangoo ko remercier ngi gis rek sa bopp damay annulé lépp ba pare dama koy wëlbi def ko bàkkaaram dugal la fa maanaam ñoom li ñu gisee mbir mi kon mooy ne ndogal bi lan la tout le temps benn euh, genre jëflante la bu yàlla di jëflante ak jaamam bu ko defee nit ki di xam ne ah lii laa war a def lii laa war a bàyyi lii laa war a ñoom noonu lañ ko gisee te loolu muy mashhad bu yéeme bu am solo mu def nag léegi al mashhadul rabia ashabu mashhadul rabia boroom ñeenteelu gis-gis mu ne xaalu dañu wax ne ñoom al ibadu jaami nawaan ñaari seet lañ abdul benn jaam boo xam ne li saari du moom foofu fekk day jàkkaarloo na suma boppam day gis boppam maanaam moom foofu gis rek jaami façon yi ñaar lañ mooy koo xam ne kenn ci moom boppam la gis tout waa abdul mu am jaam koo xam ne yu saahibu day jàmmaaloog lii nii am na naka ne allah bur yàlla samaahu mooy dégg-déggam wa basarawatu moom mooy gis-gisam wa jamia quwaahu te moom mooy mboolem kàttanam maanaam ne borom subhaanahu wa ta'aala mooy dégg-déggam mooy gis-gisam kàttanam yëpp yàlla la. fal awwal kon ku moom mu sayyaru maanaam moom dañ koy wobba ku njëkk ci moom dañ koy wobba parce que comme moom boppam rek lay gis ci mbir yi kooku faaw dañ koo wobba waaye wasaani ñaareel bi nag yox alu day def billaahi ci yàlla maanaam maanaam moom lépp lu muy def rek day gis ne yàllaa koy def pour nga moom mu xañeerum ku ñu tànn loola لأنه ndax moom yu xayiru qada day soppi ak ndogal bil qada di ko jaare ci ndogal kooku moom day am pouvoir sax ne lu yàlla dogal moom daf koy jël wëlbati ko soppi ko def ko ndogal maanaam soppi ko ba pare nam ko soppee mu nekk ndogal waaye foog mu minu te acte bu tukkee ci moom kar foog ne kéem acte la min rab kar xam kooku mu kéem acte la min rab yi bu tukkee ci boromam Euh, en fait lii nii mooy comme li Seydina Ali loolu Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu dafa àndoon ak euh, kuréel bu mbooloo ñuy dem Sham maanaam di dem Sham bi ñuy dem Sham ñu dégg ne Sham de dafa am euh, mbax bu fa nekk maanaam mooy tax épidémie bu fa Euh, léegi Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu anhu daal di arrêté mbooloon maanaam groupe euh, fekk euh, kii la ñu benn bu mag la woon mu arrêté nit ñu leen nañu toog taxaw Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah radiyallahu maanaam muy laaj gaay seen xalaat nan lañu war a def kan moo am xam-xam ci biir manam bu ñu ñu amé ban nan lañ wara baxal doxal waa ne ko Seydina Abu Ubayda radiyallahu anhu ne ko afiraaran maanaam moom mu ne non nañuy dellu mu ne ko afiraaran min al qadar ya amira muminin ndax dañuy daw dogal manam dogal yàlla manam moom li mu moy bu ñu déné ci euh sax tek test ba ma nga fa ñoom bu leen test bi dalé nga gis ne yàllaa ko dogal bu dee test bi dalul ñu xam ne yàllaa ko dogal moom noonu la gisee woon jotul mu ne asiraar min al qadar yi yaa amiral mu'minin ndax dañuy daw dogal bi mu ne ko déedéet mu ne nafirru min qadarillah ila qadarillah dañuy daw dogalu yàlla pour dem ci dogalu yàlla voilà <laughs> ok li ñuy daw c'est vrai que dogalu yàlla la ñuy daw nii mais suñu jëmit dogalu yàlla la bu ñu demee feebar bi daal dañuy xam ne yàlla ñu dogal yàllaa ko dogal maanaam bu ñu demal ba du foofu feebar bi dogal mais comme yëpp lañ ci dogal boobu la ñuy daw mais sauf que xam na ni fi ñu jëm mooy feebar bi ba ñoo dal loolu dogalu yàlla la loolu du daw maanaam loolu man man maanaam daw. dem ci dogal yàlla gee moo ma gënal ndaw dem ci dogal yàlla gee maanaam ak lu ma nekk yàlla ko dogal maanaam mooy xel bi ma may daf ma permettre ma xam dogalu yàlla loolu xel moomu ci dogalu yàlla dina bokk kon foofu acte bi mi tamit kooku ku mel noonu acte bi ñuy acte mbir yi mooy ne dogalu yàlla maanaam moom lu mu rek lépp lu mu rek moom day nuuk acte bi yàlla tëral kooku moom day mën a soppi dogalu yàlla def ci maam ga maanaam dël dël dogalu yàlla soppi ko beneen dogal muy beneen dogalu yàlla léegi loolu bi xewee pour yeggale wax bi Seydina dañoo ci biir loolu ci la Seydina Abdourahman ibn Awf radiyallahu ne ko man di diggoon naa ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne soo leen di benn feebar am ci benn dëkk bu leen ko fekkee bu leen waaye bu leen ko fekkul bu leen ko dugg maanaam mooy su benn amee ñu ne épidémie bi am na dëkk sàngam yow su la fekkee ci biir dëkk bi bul jël mais yow bu ko voilà. waaw. nga ni fu mu nekk doo génn wala doo génn. mais non. mais non. non non non boobu moom dañuy génn de parce que loolu bukkul xam nga feebar bi lii feebar bi li tax mooy ne su ma feebar bi balee maanaam feebar bi épidémie la. dafa am ay juri wala ay microbe euh, yu ñuy yu ñu wàllaat man tey mën naa yanu feebar bi génnal moom dem bu ma demee ba wàllu ko ñeneen ñoo xam ne amuñu ko woon loolu bokkul maanaam du benn quoi alors que mën naa ma faj maanaam faj faj ci mbir mi ak yu noonu loolu bokkul ak euh, ak jëjjële ba pare ku ci génn àdduna ci biir goxaat yooyu maanaam martyr ngay doon bokkul ak tamit euh, euh, ak ak catastrophe bi am kooku te da ngay da ngay da ngay da ngay xëy maanaam ndaw yi ba amee tànk mu ne qaala sayyid Abdul Qaadir Jilaani radiyallahu anhu maanaam sayyid Abdul Qaadir Jilaani radiyallahu anhu dafa ne kullul awliya mboolem wàllu yu yàlla yi lamma ba nga xam ne wasalu la ñu yegg ila qadari ci dogalu yàlla wajaduwu dañ koo fekk mu sam man mu nekk loo xamante ne dafa tëj maanaam loo xam ne dafa impénétrable daal di taxaw illa ana ba mu man moom bu ma ñëwee ñeneen ñëpp bi ñu ñëwee dañoo ah affaire bi dafa tëju ndar kepp waaye man fa waaye man futi futi xat dañ maa ko bir lii man fii ci moom ah, raw dana ak xoox ndoll fa walat ci ma daal di xuus fii xaa ci moom fa daa faaku ma daal di ak daaral xaqi dogalu yàlla yi bil xaqi yàlla maanaam man yàlla laa jël mu nekk sama jumtuwaay bi nga xamante ne lépp lu may def comme man yàlla rek laay gis ci lépp maanaam loolu la wax mooy moom ak ñu mel ne moom maanaam loolu la ci dugg maanaam moom day jël ni yàlla rek mooy mooy moom moom lay dogale lépp moom la lépp di amee comme que yàlla la lépp di amee te moom jàpp na ne moom yàlla rek a nekk yàllaay soppaliku ci moom ak yooyu moom lépp lu mu def yàlla moo ko dogalee noonu moo tax par rajulu waa ji nga xam ne huwa moom al munaazi'u mooy aji euh, xëccoog lil qadar ñeel dogal laa nekkul ki nga xamante ne al muwaafiq mooy ci dëppoog la foofu ñeel ko wa li zaalika moo tax ñuy wax naan maanaam du ki nga xamante ne naan ah, mbiri day moom maanaam toog noonu rek xaar lu mbiri moom lu xew rek yàlla yàlla moom nañ xaar dogal yàlla rek loo xew baax na mbir mi tamit du demee noonu maanaam dañuy def dañuy jóg ne yàlla li muy def yàlla li muy dogal li ngi nii man xaw ma ko daf ma dama ko ignoré totalement mais man dinaa nekk ci sabab lu mais ànd ak loolu yëpp nag lu xew rek ma gëm ne yàlla ko voilà maanaam ci xaar dogalu yàlla di ko du ki examen maanaam ci demul dañuy examen foofu sukkandikuwul ci dogalu yàlla ci sukkandiku ci dogalu yàlla mooy ci dem examen ba pare def la mu dem dëgg di xaar nag lu yàlla dogal di xaar résultat kooku kooku sukkandiku ci ndogal yàlla voilà moo tax wali zalika loola tax ñu naan xaal xaalu ñu naan bismillah maanaam bismillah boobu ñu naan aar bu tukkee ci naan bi maanaam xam dëgg dëgg bi ka moo kun ñoo yam dina maa tukkee ci yàlla comme yàlla bu ne nekkal mu nekk moom bu muy dana bismillah maa ngi defee ci pour yàlla na yàlla def naa la maa ngi koy defee ci pour yàlla ci yàlla laay sukkandiku ngir dugg ci li dugg maanaam dépendre ba sama yàlla laa dépendre pour li may yëpp ma di ko def moo tax waa ahlul janna waa aljanna bu ñu nekkee aljanna jami'an mboolem seen yaquluna dañuy wax ni fay ngeen di kum nekkal sa rasulullah aljanna bu gaa nekkee foofu loolu la ñu am luñ bëgg rek dañ naan nañu am mu lu tax maanaam dogalu yàlla ñoom dañoo gëm ne comme que yàlla mooy def lépp lépp ci yàlla la aju ñoom bu ñuy wax maanaam dañuy sukkandikoo ci yàlla rek mais na yàlla def nangam la luy am la luy am yàlla def à ñoom. maanaam kon ñoom borom manxat bi ñoom nii lañ ko kon de fii la euh, bunt bi yàq jotaay bii di ñëw dinañu dugg ci beneen chapitre insha allah chapitre bu ama am am solo euh, buy gisee nag ci ay mbir yu bëri am am am solo pour ci suufu ci yoon yàlla mooy liy wax ci wàllu euh, askan bi mooy manifestation divinique seen ko ak ak ta'addud limu maanaam le fait que nga mën yoon yor ay jëmm yu bëri limu te yeneen yi moom ko ak tabaddul bu mën a wéccoo maanaam mën a yor nekk fii nekk feneen voilà di mën a feeñoo ku bëri comme waa àjjana la ñu mel xam nga waa àjjana noonu la ñu voilà maanaam waa àjjana dañu mën a yor jëmm yu bëri en même temps nekk fii nekk fii voilà waxta awul mooy di mën di soppaliku soppiku ci mel ni ba pare soppiku yor danañ jëmm wa tamassul euh, te mooy comme lii euh, malaaka yi di def maanaam yor jëmmu malaaka mais mënu ñëw ci kaw suuf yor jëmmu nit euh, wa tasakkul ak yor jëmm yoo xam ne comme jëmm yi di def bu ñuy soppaliku jël benn voilà maanaam di soppi soppaliku nangam waaye ak wàcc ci dara maanaam mooy comme ni parasite yi di def bu ñu wàccee ci benn affaire jël ko hmm? lu parapluie bi def quoi man dañ fekk benn garab lu gis beneen garab ñëw maanaam daal di inhiber totalement beneen bi ci def daal dund kaw wala ni ñu nekk ci biir nit masalan lu waaju nekk rek ñoom ñu naan voilà comme li Sadio wax voilà wala istixaar maanaam ak bennoo maanaam comme ni suukar di def ci biir ndox en suukar soo ko jëlee sotti ko ci ndox ni ñu demee ba nekk ba seey ba nekk moomul ndox mi nekk benn voilà euh, wa tasawur euh, ak ah, di jël di amal benn forme maanaam di créer forme ak euh, wax takawul ak di amal mbir moo xamante amutoon maanaam yii yëpp différence yi yi ci am maanaam nit yàlla yi nan lañ koy dundee surtout naka lay feeñee nan lañ leen di xàmmee ne lan moom la moom moom par exemple comme bu xoolee li tax mu am solo par exemple bu xoolee al xulul wal ittihad maanaam mooy wàcc ci dara wala boog nga bennoo ak dara maanaam wàcc dara mooy comme ni saan yi di def wala euh, mooy parasite yi ni ñu def comme par exemple ak mooy comme ni suuf si di def mooy fusion boobu euh, loolu par exemple boo xoolee euh, chrétien ñoom ko dañoo juum dañoo jaawale loolu ak sajal pour chrétien yi yàlla daa wàcc ci yéen ci yàlla ay saa salaam maanaam mooy yàlla daa wàcc ñu jël forme humaine bi maanaam moom mooy Isa maanaam loolu kenn la mooy ñoom ñooy ne Isa mooy yàlla am ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy saalisu salaam kenn la ci yàq yi mooy si ñoo daa am ci seen biir maanaam yàlla la dëgg la moom mooy tamit Isa mooy roo l'esprit mooy mooy voilà l'esprit le Saint-Esprit comme ni ko roo comme que maanaam la ci ñun ñëpp benn rek voilà parce que ñoom dañoo maanaam jaawale jiñ jaawale maanaam li ko indi yooyu yëpp dinañ ci ñëw tamit ci buntu boobu Euh, incha allah lu tax lu tax affaire bi leerul ci ñoom et que yàlla day feeñu ci nangam day feeñu ci lu ne loolu bu buukul ak ne yàlla ci boppam mooy loola bu benn voilà comme ko gisee woon maanaam le fait que euh, man ku defaree ne sama xam-xam feeñ na loolu sama doole feeñ na loolu sama kàttan feeñ na loolu ingéniosité bi tax ma mën ko defee yooyu feeñ nañ ci loolu buukul ak ne man maay loolu bu maanaam maçon bi bu kere bu tabaxee kër gi ba kër gi rafet maanaam moom mooy feeñ ne feeñ ne ci kër gi mooy ne ah tey da ngay gis benn waay bu defar ñaari nit ñu defar benn affaire boo xam ne ñoom ñëpp dañ koy dem na la ah lii de jiw jiw lii de jiw jënd parce que dañu xam ne fii mooy faral di defee nii mooy faral di doxalee nii bu rafetee nii baa fii nii rek xam nañu saa mais tëkkalewul ne moom ci boppam mooy jëmm yi bu defar. mais xam-xamam moo ci feeñ ak ay ingénieurs yi ak doxalinam ak façon yi muy faral di doxale ay attributs yom la moo ci feeñ loolu moom mooy feeñ yàlla ay feeñ ci lépp loolu lay feeñ mooy day def sajam bi ci lépp day feeñ ci lépp day manifesté wu ci lépp chrétien yi nag loolu lañ jaawale par exemple ak ne yàlla dafa fusionné wu ak mbir yi wala boog daf see wàcc loolu loolu jaawale bu réy réy la te ñu bëri mënuñu ko xamee tamit moo tax ñun ñu ngi juum ci biir jullit ñi dañuy jékki jékki ne jiwu yàlla la wala kii ah, wala kii mooy yàlla wala mooy loolu ñu nekk bokkaale bu mag bu garaaw a garaaw buy jéem nit ci lislaam voilà sa yi alayhi salaatu wasalaam ñoom mën nañu di di di di feeñ ci nit ñi ak yu mel noonu mais naka lay demee ak lan la loolu tam dinañ ci ñëw boobu maanaam bu différence boobu le fait que malaaka yi ni ñuy toppee ak lan lañ mën a topp di ko ak lu mu mënul ak it jinne yi lañ mën def ak lu mu mënul def ne wax nañ ne waa àjjana noonu la mais ci biir nit yàlla yi am na ñu mën loolu comme ni ko gisoon maanaam Ibrahima ibn Adham rahimahullah par exemple nga xamante ne day man da dañ ko gis benn dugub ci dëkk ci ay dëkk yu bëri mu nekk comme ci benn bët ci benn moment même instant bi loolu naka lay ak lan la ak lan lañ mën a topp di ko am lu ñu ñuul topp ko xamee voilà ay ay ak yu mel noonu yooyu yëpp maanaam différence yi nga xam ne ñoom ñoo am loolu ak tamit le fait que lii mën di amal dara ak di jox forme mbiru moo xamante ne amu ko woon ak maanaam pouvoir bi yàlla di def limite ci